màggal gii sëñ Tuubaa musul na ngeen ma defale lenn ba muy dem géej satala ak kaamil ak xësi ak daa ak xalima moo ko topp amul kenn ko topp xare ba cent 313 saaba la woon nu sëriñ Tuubaa dem xare lislaam gaañul kenn tuurul deret kenn gaañu ko ñibbisi kon sëñ Tuubaa bu mu ñu gën a gore sëñ Tuubaa bu mu ñu gën a gore maam Cerno Biraay bu mu ñu gën a gore ma ngi toppal sëriñ bu ñu gën a gore maam Cerno nga xam ni nga xam ne jàmbaar am na at moo xam ne Sénégal li mu rëy rëy moo leen jox jiw bekkoor moo fa amoon kenn amu jiw maam Thierno Ibrahima Ndaamal Daaru moo jox Sénégal gépp jiw Serigne Touba noonu lay formé noonu lay forme keroog bés ko tedd wàccee liggéey kenn ñu ma wul de waxe ko maam Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Cheikh isaa Dieng moo jóg ni sëñ Modou Moussa ba ma joxee ndigal ma dem Cheikh Issa bi mu ñëwee fekk maam Cheikh ma ngay sikkar di sikkar di sikkar di mu ñëwee da koo nuyu mu ne ko ah ah, ah Issa li ma wax xam naa ko xobi garab yi ak suuf yi ñu ngi sàmba sama sang bi te nee dafa ñibbit bi àjjana ah Issa jërëjëf te da koo nuyu rek nga xam ne kenn du Serigne Touba nañ leen gën a gëm Serigne tubaa te wóolu ko mbir nag boo ko gëmee te ko doo si jëriñu mag ñi loolu lañ gënoon a bëgg dañoo dañoo gëmoon Serigne Touba sama nijaay de ji ma yar lu Moussa ni barkeb Sëñ Mbàkke Madina xamal ni loolu dina ko def mag ñi bu mu ñu gën a gore maa ngi soññi bopp di soññ ñëpp tey baal ñëpp ak te sëñ Bamba maam na xale yi ngeen ñaanal ma leen bu baax a baax a baax yàlla aar leen yàlla may leen wér dafa leen kattan ak xéewal te lii am si réew mi si barke alxuraan yàlla na fi gëj ni ko sëñ Bamba waxee nañ leen raxas xol yi te baloon te àq sëñ Bamba wàccoon naa ñun de luñ manqué rek si ñun la maa ngi tuubal ñëpp bu baax a baax di ziar sëñ Basiru Fall mi day xale demoon Sénégal ñi may ko soxna soxnaam wàcc barki démb mit na trop waaye ñaan gii ñu ko defal mooy lépp. ndax jamono yaa rasulullahi sallallahu alayhi dafa am bàq ya kenn ku ne xam ne ku déwul màkk dégg nga ko heure bu fa jaaree am bara boo xam day sax ñax barab yi mu dendal du sax ñax yaa rasulullahi heure bu fa jaaree day buddi si ñax mu tooy mi di jëmbat si nga xam ne du sax ñax ba mu jaaxal Omar ak Aliyu ñu ne ko waaye yaa rasulullahi dañoo gis heure boo fi jaaree euh, ñax mi ngay buddi di ko jëmbat si nga xam amul ñax lu tax mu leen kii dafa bàyyi ay njaboot goo xam ne si àdduna dañ koy ñaanal ñaan goog la suñu borom barkeel ba muy sax ñax ñii nag bàyyiwuñ ñu leen ñaanal kon maa ngi lay dénk sama di leen dénk képp ku am mbokk wala waajuru dawlu boo julleetee loo yàkkam yàkkam dee ko ñaanal mi ngi mel ni sew bas bi muy dund boo demee wester ñoom mandaté ko da koy jot noonu muy jote ñaan euh, euh, xaalis bi noonu lay jote ñaan bi ngi si góorgóorlu lu baax a baax tey ñaan aaya alxuraan wi mu jàng <coughs> ak xëyitu euh, bayitu xasida yàlla na ko Serigne Touba teeru fa mu jëm barkeb Serigne Touba di baal ñëpp ak sama nijaay Moussa Jonn mee na ngeen baal ma day jëw ñu sëriñ Touba sa mëroon te bu mu ñu gën a gore lu Linguère xew la day ñëw waa Morone mbale ma ñuy mbale màggalu euh, fële Touba par màggal ab sëriñam la ko sëñ taxaa jox te at mu ne daayir asabul jannat la si doon barkeelu ma bëgg kenn ku ne sëñ Basiiru ñun li ñu sëñ Touba defal xamuñu ko keroog ba sëñ Touba jóge Louga dem bay dëgmal Ndar lañ ko ne am nga gan mu leen lu gan gi tudd lu gan gi doon ñu ni góor la mu leen Basiiru ngoog borom mbég ma ak ba bi mu demee bay bëgg a dugg béréb béréb góornóor la ko sëñ Basiru kar si ci baatin te ba jur bi mu ganee àdduna ni ko bàyyil ma dem liggéeyi sëñ Tuubaa ni ko Basiru damaa bëgg nga toog ba léegi nga doon mbégu muurit ni kon bu ñu sëñ Tuubaa gën a gore ab sëriñam rakk sëñ Muntaxaa lañ jox mbaleem jumaa ja kon nañ si barkeelu ana sëñ Asan sëñ Asan acca dañ ko barkeelu jox ko sëñ Assane Baye Fall mu mu sëñ Assane mu jox ko sëñ Jonn heure bu ñu wàccee yàlla na yeex dañuy dem penku jumaa ji acca <coughs> kon sëñ Bamba sëñ Maam Thierno sant nañ bu sant nañ bu wér sama gone yi daal na ngeen leen ñaanal bu baax. mbokki taalibe ñu ngi leen di siyaar bu wér di siyaar jëruñ ji nga xam ne mooy jëruñ daara bi sëñ Pape Sora nga xam ne dëkk bi ñu nekk ni moo fi sama xalifa ndax waajuram bu jigéen ak sama waajuru góor ñoo bokk ndey ak baay waaw di siyaar. sëñ Bamba Niang mi nga xam ne moo topp sëñ Yankoba nga xam ne ci fédération bi nekk Argentine yëpp ak sëñ Mame Thierno Amar ak sëñ Assane Baye ak sëñ Siri mi nga xam ni sama jàngkat ñu ngi koy siyaar bu wér waaw maa ngi koy tooñ léegi sa naan ko bu màggal ki weesoo dañuy daa a ñëw toxu si ñëw capital waaw di siyaar sama taali bi nga xam ne maa ko yoroon ca daara ja tamit muy seen seex Kane nga xam ne ñoo bokkoon benn daara ba nee xale ba tey ñoo doon ànd ak mboolem mbokk mu nekk fii rek waaw comme yi moom li wax ci màggal gi moom wax ci leneen dana euh, du yomb waaw man moom fi may soññee moom mooy ci daayira Sëriñ Tuubaa yi rek maanaam fépp fu nit ne maanaam muy Lignes muy capital muy Morone foo mën di ne bu ñuy def daayira Sëriñ Tuubaa nga génn dem ca waaw waaye nag toog sa kër gars yi dem daayira Sëriñ Tuubaa doo dem gars yi di joxe seen addee doo dem gars yi di joxe seen social doo dem ëllëg yàlla tere jékki-jékki dara dal sa kaw nga wokk Seex Kan wala Modou Seye bi nga dëkkal ni ko neel gars yi ñu dimbali ma maanaam loolu moom góor gu ne war na koo moytu waaw te dëkk bi ñu nekk fi mu nii dafay bari lool da dem daayira sa romb leen ñu ni kii day font day caaxaan te ëllëg bu leen ku ci dara daal yàlla tere maam da bëgg waaw da ngay bëgg gars yi dem daayira di la taxaw waaw kon nag loolu ñun ñëpp képp koo xam ne ci dëkk bi war nañu seetlu loolu waaw di dem ci daayira suñu tuwaay di joxe suñu addiye saa su ne ndax bariwul waaw semaine bi yëpp ñun la 10 heures ba minuit la la suñu tuwaay soxla nga toog sa kër ne sa portable te naan yi dañuy caaxaan ëllëg dara di am nopp rek bu dee metti waa kër suñu tuwaay ngay yaakaar waaw daayira boo mën di bokk ci ci ci ci Argentine foo mën di dem am na daayira Sëñ Tuubaa maanaam na ci mbooloo yëpp ko képp koo xam ne daawoo ci teew nga ciy teew képp koo xam ne yaa ngi ci doon tooy teew nga yokk sa pëseef ba ñëpp xàmmee la ci ci jëf ak dem ga waaw ñu ngi jégalu bu nag waaw màggal gi moom li ci gars yi waroon wax yëpp wax nañ ko waaw yàlla suñu borom yóbbu yóbbu ak jàmm ñu fekk jàmm ak ay xéwal barki borom Tuubaa dara waralu ko lu dul liggéey Sëñ Tuubaa mi mi ñu boole rek te mënuñu koo séddoo tey nag ñu ngi ñëw fii Linière ci daayira Ashabul Jannati fekk si fi mbooleem daayira di daara jëpp rek ci njiital suñu jëwriñ suñu kilifa suñu lépp muy Serigne Pape Soda nga xam ne moom daanaka ñu ñëpp ba ci fédération bi mooy suñu jëwriñ ñun ñëpp nag daanaka lu ñuy def rek ci moom lañ koy defal waaw kon ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar ak mbooleem daar ji rafet bu di rafet lu baax daayira bi ni muy doxee ak Pastef bi macha allah. dañ fay ñëw nag tey ci turu fédération bi nga xam ne moo moo lëkkale mbooleem daayira yi nekk ci Argentine muy ci karawaan bi nga xam ne si defoon nañ ko daaw ren jii ñu commencé waat ko keroog première safar bi ñu fekk si fekke woon daayira Miftaahu Nasri bu capital démb ci dimanche ji ñu demoon daayira Maam Cheikh ci njiital sëñ Assane tey jii tamit ñu ñëw Liniers fekk si daayira Ashabul Jannati lépp rek. ngir liggéey sañ Tuubaa bi nga xam ne moo leen bokk rawatina màggal gi ñu jublu lépp rek ñu ànd ko fas yéene ko doxal tam mucc ayib ndax amuñu lu dul màggal gi te yaakaar naa daaw màggal gi jaaroon na yoon jaaru yoon goo xam ne si ren war na noo def lu ko ëpp te loolu mbooloo rek ko man yàgg na noo màggal waaye ni mu demee daaw mosu koo demee loolu nag kon danoo jàpp na ñun weeru ku tedd ki bu xasee ter muy muy safar bi danoo wër di wër di waxtaan di baaloon dàq di jàng alxuraan di berne te ci loolu la nekk nii. kon nag ñi ngi wax ci turu fédération bi ci njiite sëñ Yankoba ak sëñ Bamba ak sëñ Pape Sodo mi nga xam si tey moom lañ si. ak sëñ John Mële ak euh, sëñ Assane mi ak sëñ Modou Sey ak mboolem jëwri yi nga xam ne ñëwuñu rek ñi ngi wax seen di leen wax ne ñi ngi leen di soññi ci màggal gi nga xam ne si moom la ñuy waajal. muy ci njàngum alxuraan mi muy ci njàngum xasde mi muy ci addee ji nga xam ne moo war a jagal màggal gi nga xam ne benn personne bu ne ñu ngi la sasoon 4000 pesos ñi ngi ñaan bépp taalib boo xam ne mën nga ko nga teel koo teewal ndax sa addee njëkk a dugg ci màggal gi ndax daanaka boo nekkee ba jouru màggal ga daanaka ci li des rek ñu koy denc ci lay bokk kon nag murit bu ne bi sëñ Tuubaa bii bu xasee yegg si daanaka waroo xaar dara comme ni ko sëñ Mountakha sëñ Ibrahima ñii ko ñii ñëpp waxee yaakaar naa màggal gi moom kenn mënu ci waar kenn ndax ñun ñëpp waaru nañ ci. ñu lu ñun ñëpp rek yeesalaat pas-pas yi te xam ni màggal gii di ñëw amuñu lu dul moom nii ñu koy waxee ne gaañee soññe rek waaye suñu jëf ci màggal gi daa a doon wérd ci ñun daa a doon wérd ci ñun ndax lañu sëñ Tuubaa di laaj mooy jaamu yàlla at bernde jaamu yàlla gi nag ni ma koy waxee saa su ne. murid yi moom wérd lañ ko def wérd nag mooy loo xam ne heure boo xëyee yaa ngi ci te mooy murid yi saa su ne ñu ngi jàng ñu ngi jàng alxuraan ñu ngi jàng xasida leneen li ci des nag muy bernde bernde addiye ñoo moo koy def te addiye nag dafa bokk ci ponki murid yi addiye moom bi sëñ Tuubaa di lim murid saadeex yi da caa boole addiye kon nag ñu xam ni dafa war a doon wérd ci ñun kon lii nga xam ni moom la ñuy soññe du dara man ni ma koy waxee rek mille peso ku ko fi jaay semaine képp laax semaine képp ku ko fi jaay 4000 pesos wallaay lazim da nga woote Sénégal wala wala nga jege sa sa mbokk murit ne ko jawrin booy durusati ñaanal ma man de am naa dama am loolu jaaxal muy laal nga nga nga ni ko 4000 pesos laa jaay ci semaine bi barke borom Tuubaa Mbàkke loolu moom ñun ñëpp mën nañ cee doon seede ndax xamante nañ te dañuy demalante ñu ñu laaj la ko nag ci at buñ la ko laajoon nag ci dajale ko rek di wut kuñ koy dimbalee keneen mu mën a jafe ci yow waaye dañ la kaa laaj ci at ci kan lañ la ko laaj ki nga xam ne moom nga yaakaar adduna at alaxira moom nga ni tey jii boo nee jaww ci biir bàmmeel moom rek nga fa nga fa yaakaar te bàmmeel moom xat na xataay boo xam ne ka fa yaakaar wala lazim ku am solo sa dund la kon nag defe naa naa ne looyu eh, war naa oyof toll tollu toll ci ñun man damay wax ni lu waay jàmbaar jàmbaar jàmbaar ci yoon wi ab des nga jox sëñ Touba lu waay jàmbaar jàmbaar ci yoon wi ab des nga jox sëñ Touba li tax ma wax loolu nag mooy ñu ngi lijjanti soxla dépense Sénégal yaa ngi dem portable yi ñu ngi koy jënd di ko yobal sañu soxna yi at yeneen ak yeneen yoo xam ne greffage yaa ngi dem yu bëri yoo xam fi mu ne nii wóor na Sëñ Tuubaa Mbàkke message képp jarul wax bu ñu la ko defoon tey ci guddi gii boo xëyee yitte yoo xam ni nga ciy def tuwaar fakal la te léeg nga yàq ci loo xam laaj ñu la ko ci màggal gi te ka nga koy jox kam koy jox ak ka mu nekkal ñëpp yow fi mu ne nii ya buñ ne woon jërëb ci kaw suuf Sëñ nga leen di jébbal kon nag nañ delluwaat toogaat xalaataat ndax ab murit dafa war di xalaat daf borom xel la xel mu ñaw la war a yor te loolu ci wéetaay nga ko mën a def mooy nga toog évaluer sa journée bi yëpp ana la laaj ci jox sëñ Touba lu mat a bàyyi xel la te sëñ Touba nag loo ko jox ci li nga ko jox rek la lay téyel la ca des nag dafay bàyyi yow te loolu dalay lay sonal lool kon nag nañ leen góor ñun ñëpp rek eh, fattaat bët yi reyanteeg seytaane te xam ne mu ndaw mu bare bu doon cent peso laa la wax nii seytaane dina ñëw sa ne la boo ko joxee dootoo am ndax loolu rek moo doon moo doon moo doon moo doon moo doon moo doon marché waaye nag ñu góorgóor ñun ñëpp rek te xam ni eh, li ñuy laaj du dara te màggal gi moom alaa kulli dana jot alaa kulli dana jag liggéeyub sëñ tubaab bi yëpp noonu la mel li fi jaar ci dëkk bi yëpp wóor na sëñ Tuubaa biñ koy jib biñ koy jib ñun ñi jege xëy na liggéey boobu de xam nañ ci dara ak sikk sàq da ci daan xaw a am waaye bu rombee nit ñi ne alhamdulilah loolu nag war na ñoo xam ni mbir mi sëñ Tuubaa képp ko yor kenn du ci lenn kum ci mënti doon ñu lay tudd rek wallaay lazim dalaa baaxee rek waaye mbir mi sëñ Tuubaa képp la kenn du ci lenn lenn lenn kon nag ñu góorgóorlu ci ñun ñëpp rek ngir suñu jëf tàbbe ci eh, li ñëpp ñaan nag yàlla nañu dal te mooy ay ndaw lañu dañoo yittewoo fan wu gudd lool yittewoo xewal yu yaatu ba yéene gi ñu am suñu dënd bi te mooy liggéeyal sëñ Tuubaa ñu def ci lu kaay njort lii ñuy wax faatu nag te mu bari fi loolu jamono jii yàlla na yéex a yéex a yéex yàlla bu ñu dalee ci dëkk bi waaye it yàlla nañ gudd fan lool ba kenn ku ci ne nësëg bi nga am sa biir dënd bii nga def ci loo xam lu kaay sañ njort la leneen liñ ciy boros rek mooy kër sañ tubaab gi nga xam ni boobu ba léegi xëy na yéen yéen a ngi koy dégg defe naa bi sëñ aboo ñëwee tegaloon nañu xeer bi loolu moom ñëpp teg nañ seen bët bu soobee yàlla it semaine bii ñu jëm fas yéene nañoo taxawal miiru kër ga ndax dañoo bëgg moom bu déwénee ak jàmm moom ñu màggale ji ko fa kon nag yéen jànkatu xas day jàng al jànkatu yi na ngeen ñaan bu baax a baax a baax yéene gii ñu ci am maanaam seytaane bañ ci am benn benn benn benn benn yoon la koy defar nag la koy defar nag addiye lay doon te château la ñu fas yéene tabaxal seen Touba ci biir dëkk bii bëgguñu mukk benn benn tabax féete kaw ndax moo féete kaw ñëpp kon nag nañ leen jaayante ñun ñëpp buñ ca yeggee fu ñu ko laajee rek wóor na sëñ Touba Mbàkke ñu miiraas ni yor yëpp def ko ci te xam ni dañu fay bëgg a defar barab bu mucc ayib boo xam ni danañ ci def jàngukaay woo xam ne sañu doom yi juddoo ci dëkk bi at xale yi tu tànk yi ni ci dëkk bi ñu wutal leen fa barab yoo xam ne danañ fa jànge seen diine def fa jumaa ju rëy joo xam ne danañ fa mën a dem di julli jumaa at yeneen ak yeneen yoo xam ni lépp mu ngi ci biir programme bi ñu gaawante nag dawal fa sañuy yiw ndax yooyu mooy barab yi nga xam ni boo nee jaww ci bàmmeel moom rek nga fay fekk li ci des nag sëñ Saali waxoon nañu ko suñu biir bopp yii bu ñu bàyyeeg sañu borom mi nga xam ne moo ko sàq wallaay lazim lañ sawar dana ko def ndax kéwal ci àll bi gën a suur xar fopp te gis ngeen amul borom day daw di faral yàlla mi mu bàyyil boppam nag moo tax moo gën a rafet xar gën kaak suur xar mi ne ci kër gi nag fu ñu ko xontewul mu ràgg loolu nag misaal la ci ñu bàyyeeg sañu bopp sañu borom te daw na jëm ci li nga xam ne maanaam lu mu yàgg-yàgg danañ ca dem te luñ fa fekk lu luñ fa deful duñ ko fa fekk te looloo gën a doon farate ñu ngi jéggalu ci kàddu yu baax di leen baalu àq bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu li ñu yëkkati nag moo jëm ci màggaluk Tuubaa gi muy karawaan bi nga xam ne ñi ngi koy dox di turne di dem ci daayira yi démb ci dimaas ji ñu ngi woon daayira Maam Cheikh Fall muy daayira Jësbul Murit tey ñu ngi fii ci Linees daayira Assaabul Janna ñoo ngi leen di siyaare bu baax yéen mbokki taalibe yi nga xam ne yéen lañ fekk si mu mel ni li ñu yëkkati kenn ku nekk ci yéen am na yéene ak pas-pas ak xolu def ko muy màggaluk sëñ gi waaye nag mbooloo yërmande yàlla màggal gi nag liñ ciy wax mooy dara dajeegu fi fuñ mën di demit dañ naan jëwriñ yi bu ñu wanee gannaaw rek nañ commencé te xam ne màggal bu ñu koy def ndax dafa am téere bu sëñ Musaa Ka bind tudde ko màggal yi mboole màggal yépp ci la ko tënk mu ne mboolem murite dajaloo di màggal ngir yàlla déglu leen ma ma wax ba xàggal man njàmme maa leen deetiyee ci màggal yi xew ci réew mi ba ku nekk màggal ngir loo xamul baatin ba doo ko fonk te loo amul pas-pas ba doo ca bokk kon nag dañoo am pas-pasu bokk ci njabootug Sëñ ci biir wolofal bi dem na ba naan kuy ñaw te fasoo wëñ ga sam mboros jagadi day wolof yu xóot nag mu ne kuy ñaw te façon wëñ gi rek mboros ma jagadi loolu nag mooy kuy màggal te yoroo xaalis doo màggal booy ñëw da ngay fastaatu wëñ ga bu ko defee sam mboros jag mooy addiya mooy màggal addiya nag kuñ ko mën di jox ci kaw suuf yelloowoo ko addiya bàmbaa ko jagoo ku def ni moom da ko jagoo ku deful ni moom doo ko jagoo kon addiya bàmba rekk ko jagoo kon nag nañu jël li ne ci suñu poos yi jox ko sëriñ Touba te xam ne sëriñ Modou Aminta Fall dafa mos a dem ci Sud Africa am ku mel ni Assane Baye Fall di ko siyaare yëkkati xaalis ba ëpp doole ca ran ndax ñoom ran lan yor bi mu ñëwee tàllal ko sëñ bi sëñ bi da koo fettesu na ko yeggal suuf mu yegg suuf mu ne ko baxam ko sëñ Modou Aminta ca teggin nga mu ne ko baxam ko mu baxam ko mu ne ko parapara ko para para mooy nga dajale xaalis bi nii raw ko nii ba mu ba mu raw mu para ko ba pare mu a ko lemaat ko mu lemaat ko mu ne ko sëggal ndànk mu sëgg ndànk mu ne ko bu ko loxo càmmoñ bi sax gis ne ko mbaa xam nga ne booy denc lu lenn te saay-saay yi dañu bari ci yoon wi muy seytaane ñun moo ñu topp ñun mu murit mu ne booy denc lu lenn na nga fexe ba bu ko saay-saay gis tey boo yoroon loo fonk ci sa biir kër war koo denc wallaahi azim doo nangu kenn gis ko àddiya mm-hmm. nag ab denc la rek sëñ fàllu mos nañ koy ziyaare di ko ziyaare bay daanu ci kawam waaye keroog daa am àll ne waaye ak dalwaay am dencal ñu duñ ci sonal kenn waaye buñ ci kenn sonal kon ab denc la rek gaal ak bàmmeeleyam loo fa deful doo ko fa fekk te àdduna nag bu doon journée la waxtu wépp dem na ba ñu ngi ci tàkkusaan kon nañ delloo si suñum xel ci suñu borom te xam ne suñu jaamu yàlla ci sëñ tubaa lañ ko mën a amee sëriñ Muntaxa mii toog xalifa sëñ Touba bi mu koy wax toogagut xalifa sëñ Touba nee na nañu jaamu yàlla liggéeyale ko sëñ Touba liggéeyal sëñ Touba te jaamoo ko yàlla sëriñ Muntaxa fa mu toll ci suñ borom bu demee ba am cëru wax lool rek am na lu ko suñ borom waxloo ñun murit suñ borom dañoo jaarale ci sëñ tuubaa nam tegtale woon Cheikh Ibra ndax Cheikh dafa yëkkati loxoom ne dan suñ borom ne ko wàcceel am na ku yëkkati loxo ba pare kookee nag da ngay dem wëri ko boo ko gisee lu mu la wax maa la ko wax lu mu la defloo maa la ko defloo sama ngërëm sa ngërëm yow boo boo ko bëggee wut si ci man ci kooku la gën a gaaw moo tax Cheikh Rafal ne dënn nag sëñ Touba bàyyi lépp bàyyi boppam bàyyi ay mbokkam ne dënn sëñ Touba moo tax sëñ Moussa Kanaan yàlla mi ko moom moo ko ne Bamba moo la moom demal nga raasi ko jox ko say pexe suñ borom moo tekkal Cheikh Rafal yoonu murit ndax Cheikh Ibra nee na bu ñëwoon ci kaw suuf ba fekku fi Serigne Touba. Mhm. dana laajte xabroom bi ñu nga xam ne moom lañ ko denc mu toog ca xabru ba di ko liggéeyal di ko jaamu ba yoonu murit taxaw mu taxawal yoonu murit kon xam nga ne yàgg nañoo dénkante yoonu murit te boobu ñëwuñu jamono kon nag mbokk yi nañ dox ci màggal gi nañ ànd ci màggal gi te xam ne nag dafa tënk mbóot yu bari mhm. màggal gi kese la sëriñ bi wax ne képp ku màggal sama bésub tukki bi jihaar nga aj nga am nga yool bi loolu nag ci màggal gi kese lañu ko am sëñ bi bàyyiwul ba dem ba ñëw ne fii cant déedéet na ko ñu bari xam sëñ tubaa laataa muy dem la cant won ne maa ngi dem te maa ngi dellu si وتكفينا يوم جمع الخلق نيرانا عيد الرجاء إلى قوم لا إله إلا الله يوم جمع الخلق نيرانا يا رجوع إلى قوم وتكفينا يوم جمع الخلق نيرانا